en ligne. gis naa Mbagane yaa ngi fi ah. Mbagane xam moon yaa ngi fi sax. yéen ñett ñëpp ay ruube kat ngeen. léegi léegi Mbagane ñu ngi lay. Mbagane da ngeen bëgg jël réew mi téye ko daal. non ñoo ko téye sax ñoo ko téye. mais yow Mbagane dama laa mere xam nga dama mere la ziar naa leen bu baax. am na ba nga xam ne gisul Gaston Mbengue ci làmb nit ñi dañuy jaaxle. amiin amiin ba dañ koy laam-laame ndax dañ naan lu Gaston deful baaxul. <laughs> ngeen am nag ngeen am seen doom boo xam ne yéen di ndamoo lu ñu wax mu ni Gaston Mbengue rek laa nangoo bëral Gaston Mbengue rek moo mën a indi ay sponsor ci làmb ji muy Zos. muy sa eh? frère di sa rakk. tey mu jóge ci komba am défaite wara a komba combat coow li bari loolu ku ne contre ko ne jos du mbër ñun nag li nga xam ne moom lañu bëgg mooy digganteem ak Moussa Ndoye lan moo ko téye ndax xam nañ ni que lu mënti xew dox ngeen ci sos Moussa Ndoye bu ma koy dox yàgg na de loolu loolu mais instant mi nii nekkatul nekkatul pour dire vrai nekkatul nekkatul actualité. Mhm. parce que Zoss daanaka euh, presque maa ko indiwaat ci làmb ji ban mu koy ba mu ba am ci defe naa ñaar ba ñett combat. dëgg la. waaw donc euh, su ñëwaatee moom bàyyi woon na daanaka. Mhm. ci waxtaan ma ni ko non yow gayen sportif nga ñëwal da ngay neexal làmb. ki la dellu mais bon bu mu dellu siwaatee tam bon xam nga rek làmb moom day day day ànd ay tolof tolof wala leneen ak leneen. dëgg la tolof tolof de daa jiw bëriwul di daal tolof tolof bëri la. ko mu développé mais Lamine day nduróog Jackson quoi moom lu mu dara Jackson kuy Jackson.

mënatul bëre ak ay mu maye chance daal y de très jeunes champions yu baax yuy drainer ful. Mhm. noonu la war a bëri. noonu la war a bëri. parcelle boo xoolee ay vingt cinq personnes ñoo koy topp parce que parcelle boo ko paajee non mais réalité la réalité réalité laay wax. c'est que xam nga des pour man ay pour ay ay caatu Daouda ay wës jàmbaar ay ay ay booy yi fënd noonu mën na bëri ak ñooñu. yow lii tax man la soo ñëwee Sénégal gay yi coach la. non non bu la dalee ci Canada laa koy fekk ko. non non amul problème amul. ñu may nga wax ñu ci programme yi nga xam ne ci lu jëm nga wax ci tuuti rek. dégguma dégguma. ma ne ñu may la nga wax ci programme yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal ak ñi nga xam ne ñoo nekk di seetaan ñu mun la déglu. nga wax ñu ci ban koom nga xam ne ci lañ jëm. kii kii Maguette kii daa réer. question réponse da mu premier janvier. damay laaj Maguette damay laaj Maguette. non damay laaj Maguette pour génn. waaw. loolu la ñu. waaw lu muy laaj. Lamine man. Maguette yow def.

pas surprise mais innovation yi nga xam ne war nañ ko mën a xaar ci événement boobu noonu foofu laa waxee. pour yéen diaspora wala en général. en général ñi nga xam ne ñooy nekk ci live yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ak ñëpp en général. bon en général bon làmb ji euh, euh, ñi koy xaar. ñoo mhm. bëri déjà pour commencer àddina la du Sénégal mhm. kase du diaspora kase léegi làmb dafa toll foo xamante surtout surtout surtout làmb ji nii Boy modulo bi c'est le c'est le meilleur combat soo xoolee ba xool moo nar a combat bi dàq ci combat yi depuis xawma ban mën wax depuis Eumeu Gris Bordeaux 2011 mm-hmm. parce que mm-hmm. jusqu'à présent gisaguma combat bu dàq bal euh, Gris Gris Bordeaux Eumeu Sène. Eumeu Sène. c'était en 2011. Mhm. donc foofu la ñuy xaar Boy Niang Modou Lo ndax lan 2011 Eumeu Sène Gris Bordeaux c'était de vrais sportifs nekkoon ci seen diggu doole don entraîné gëm entraînement. Mhm. foofu instant bi nii la Modou Lo ak Boy Niang nekk. Mhm. soo xoolee seen physique di nga xam ni que ñii caaxaanuñu. suñuy mmh. wax mbër bu sport sportif dëggantaan soo ko xoolee ci Boy Niang gis ko soo ko xoolee ci Modou Lo gis ko actuellement. Mmh. Mmh. teg ci. dafa am enjeu. soo xoolee Boy Niang daan na mbëru Géejawaay yëpp. dëgg la daan na si daan na Lac de Guiers. non Lac de Guiers ba léegi ñu sax ñoom. non ah, bëri nañ bëri nañ. ah mooy seen seen seen làmb ju soof jooju si si si mooy seen làmb ju soof boobu noonu boobu làmb ju soof la. Ah, <laughs> non non neexul woon. làmb boobu moom neexul woon wax dëgg yàlla. mais combat mais mais mais mais. non làmb oh. boobu neexul. neexul. sa combat le premier bi la dëgër na feeñ de. combat la bëri na ba feeñ de. war na cee mën a feeñ de. bërëb dañ ko ko bu leen ma jaxase nag waxuma waxuma Lac de Guiers boo bëree Lac de làmb ji ci boppam moo soofoon. moo soofoon ah. pour ji ci boppam moo soofoon. mi ngi mel ni mi ngi mel ni Marley ak sokk bi mu tëggoon làmb jooju dafa soofoon. Hmm. xam nga ay lamb yu soof day am waaw comme genre yooyu noonu la mais làmb dafay war di neex di di di di saf-sàpp ay bëre am kurpeñ am xeex am mais lol mooy làmb bu loolu mooy làmb bu neex loolu nag la ñuy xaar le premier janvier Lamine Lamine xam naa man damay ñëw damay ñëw génn ba bàyyi kii mu ñëw quoi Momar laaj laaj Maguette ay question ah, man Maguette lu ma parce que damay damay dem moo tax quoi daaw lu may xam nga lu ma ko bëgg a laaj mooy combat bi le premier li ci des bëreetul mais dama gis moment Boy Niang ak Balla Gaye moment bii nii làmb ji ma ngi doon tàkk quoi am coow am pression bu métti xam nga coow li bëri foo dégg rek coow coow laay fi xuloo yi xam nga wala affaire yi tàkk mais dama gis combat bii nii benn kii moo ci amagum quoi benn jàkkaarloo moo ci amagum lañ defagum mooy bu keroog bi après tam te juro bo gisee affaire bi comme xew quoi manam cinq heures de temps la ñun ñu mun ñu koon seetaan yeggale ko xam nga wala parce que dafa gudd trop xawaare yi bari fa ki mbeuri ci sa ñu wax fofu nonu lu bari question yi leen la laaj sax mënuñu ko tontu xam nga wala manam temps bi da gudd léegi ñun instant bi le premier li ci dess pour moment bi yeen événement nga mëna def ba yeewaat lamb ci ba yee ko parce que ko mën lay ay kër paquet yi ni war nga leen di di woo indil ay expert ñu sponsoriser xam nga yëkëti lamb yi parce que ñoom dañuy taal lamb kër si xam nga ak ñeneen ak ñeneen. xam nga parce que lamb parce que le premier janvier boo xoolee bee passé am na ñoo xam ne sax si kii lañ toog si barrière yi dafa fees ba gars yi amuñu fuñ toog te instant yi làmb yuñ jóge instant yi coow li bëri na pikin ñu ne moo Lo da ko bëgg a tëj rapp parce que daa daa daa nangu koron bi si ñoom ba tegal leen koron bi naan leen booy kaay leen kenn par kenn xam nga ma la booy ñaata tamit xamal ne ko sama papa lu mu wax maa ko dëggal kon combat boobu mën ta yomb mais nag combat bi mais ni mu tàccee woon bii taalaguñ ko quoi taalaguñ ko des na kon yan SSL nga yor pour taal ko daal lan la bëgg a laaj. Tay tay tay tay, par exemple jëloon nañ tay journée Modou Lo la woon donc am nañ ay contenu Modou Lo donc d'ici xam naa quelques jours ñu jël Boy Niang donc à partir de demain di ngeen di ngeen di ngeen gis leneen. Hmm. à partir de demain. am nañ ay contenu yoo xamante ni juste pour ñu jënd pass pay per view bi la. Mm-hmm. dinañ ko commencé dugal ay ay ay ay genre film yu ndaw yoo xamante ni diggante ñaari mbir yi la. quinze quatre vingt dix neuf prévente. ok bu dee nag ñu war a dem stade prix yi fan lay tàmbalee. non loolu décidé guma ko mais xam naa comme ni ma defoon premier janvier daaw bi à peu près noonu lay di noonu lay demee rek. bu ci gën a yomb xëy na cinq mille waaw topp mouvance bi dix mille découverte cinquante mille deux cent mille ak yooyu non man Gaston production la de dégré petax bi muy daal je vous ñaari ñaari ñaari mbër yi dafa dafa dafa fekk ni que dañoo am staff mhm. ñaari mbër yi ils ont les meilleurs staff soo xoolee ba xool mhm. muy Boy muy Modou doo leen tekkale ak beneen mbër ci côté staff mhm. donc ñoom côté boobu dañ ci liggéey mhm. beneen bi mooy je pense deuxième face à face bi dinaa ko def samedi 16 inshallah allah le seize mhm. seize décembre 16 décembre du bokk ak premier bi inshallah bi moom dañeen mooy doon dernier bi je ne pense pas xëy na ñu am benn troisième mais troisième bi triplex la koy def parce que day jege donc ku que toog ce kii Pikine qui toog parcelle mhm. ñu def ben plateau à la télé ñu waxtaanee làmb ji ñu woo su ay experts surtout ñu décortiquer ñu làmb ji Non, non, non, non, noonu laa ko gis parce que les, les, tamit ñaari mbëri kase di wax après des fois day soft. Mhm.

mais des fois tam day baax euh, un certain Modou Anta dem jëli Modou Lo wax lu muy wax lépp après mu dem ci Boy Niang Boy Niang moom tam wax lu muy wax lépp su boobaa suñu déggante kii moo waxoon kii moo waxoon soo demee bay def dernier face to face bi ku ci nekk dana ne yow yaa waxoon yow yaa waxoon bi day gën a tàng day gën a neex yooyu da ci bokk léegi Makan man biir laa la mujjee laaj après bàyyi keneen mu dugg quoi muy mm-hmm. ba xam jour combat bobu non yan yan combat nga ko botalel manam yan combat la manam nga nga ci tek quoi bo xam da nga jël calaf bi da am combat calaf yi boo ci yoo ciy dugal wala calaf da nga pousse ba février. parce que calaf bi tamit da am ci lu mbeud ci nek ñu bëgg xam. combat bi kay calaf xaju ci. amna combat yo xamanteni da am na combat yoo xamante ni waaw non am combat gis nga que le er janvier. Hmm. modulo Boy ñaka kese mën nañ bëre. dëgg mu loolu moo ñu gënal kan ñoom ñaar kese mën nañ bëri def nag da ñoo boo xam ne denn combat rek lay doon. bu ñu paree <laughs> boobu il faut nga jëlee ñu ko. léegi mais foog foog foog créer ay emploi <laughs> may chance yeneen gars yi xam nga genre com yi ngay mën a dugal ay mbër yoo xamante ne ndeysaan dañuy entraîné ba dee bëgg feeñ. nga may leen seen chance mais suñu toppee ay mbër am mbooloo mbër am mbooloo mbër am na ñoo xamante ni duñu mës feeñ. Hmm. donc foog ñu may ñenn yi oh, de temps en temps ñoo xamante ni bëgg nañ feeñ ñu wane seen bop ci genre bés yi rek lañ mën a wane seen bopp. mais Père Birahim ba dina bokk ci ñi xam ni ñooñu ay savant lañu yoo xam ne di ngeen leen boole ci mbir mi. soo bëggee ma invité ko rek ma woo. ah loolu la ñu bëgg nag loolu la ñu man man fi may waxee fi ma bëgg a wàccee. xam nga c'est bon ñu ay savant yooyu yëpp. yooyu yëpp am man fi may waxee fi nga xam ne nii fa lay promoteurs yi di gën a sentir ne seen làmb daa métti bu ci côté sponsor. mbër yi man yaakaar naa ne seen staff yi lu mu bon bon war na ñoo jël kenn koo xam ne nii mën naa làkk français wala anglais avant ñuy commencer croiser toile mu ñëw taxaw génne pour sponsor yi wax ci turu mbër bi bu ko defee sponsor boobu mën a jël loolu dugal ko ci plateforme bu ko defee sponsor yi di gën a mën a dox donc mbëri yoo xam ne ni maa ngi sant di gërëm rek suñu sponsor bi ñu ngi koy sant pare nañ ci amatul leneen luñ ci a def pour am sponsor yoo xam ne dañ fiy fi continuer di jàppale làmb te mbëri nga xam ne ñooy acteur principal yi yor mbooloo mi mënuñoo wax ñetti moo juróomi moo yu dëgër lu dul maa ngi koy sant di ko gërëm sponsor bu doon toon moom mu ñaaw professionnel ñoom ni ñuy doxalee waaw Bakary. yaakaaroon mën nañ koo changer. defee ko beneen méthode boo xam ne waa ji dana laaj anglais wala français bu ko defee sponsor bi jël loolu dugal ko ci plateforme xam ne ah lii mbaawu makan sponsor bi jël na lii ñëw dugal. Hmm? man moom j'ai des sponsors yoo xamante ni ndeysaan dañoo fidèle ak man. Hmm. en général luy wane loolu mooy liggéey. Hmm. sponsor su dee da ngay tëgg sa làmb rek. xool làmb ji te doo xool li sponsor bi bëgg c'est très difficile nga mën a indiwaat sponsor bi donc da ngay tëgg sa làmb mais aussi nga bàyyi xel ki la jox xaalis pour nga mën a tëgg làmb ji visibilité voilà donc visibilité def ci am sens moo tax des fois gars yi dañuy kaas naan non pour lan duñu wàcc ci suuf wala ay affaire yooyu mais branding bi ngay def nit ñi suñu bëree ci suuf branding bi su feeñul amul sens moo mhm. tax toujours damay xeex pour géew gi di set à tout moment. Mhm. voilà donc télé bi may jël pour muy liggéey su nekkee ci suuf doy na. site internet yi certes bëri nañ torop mais day am ay jours yoo xamante ni su doon dañuy mën a bàyyi site internet yëpp dugg Sénégal nga xam ne léegi y' a plus de cent sites yoo xamante ne dañuy liggéey ci làmb ñooñu suñu nekkee ci benn géew dootuñu am lu ñu neex ci biir làmb ci léegi grand <laughs> Makan dernière question. waaw Bakary maa ngi lay tàggu Lamine Makan. waaw même man sax bëgg wàcc. waa maa leen di tàggu waaw. Euh, ngi lay jaar Serigne Diour jarul tàggu. ñu ngi lay jaar bu baax. jaajëf ñoom dañ lay tàggu me ni ku ndekki ci ngénte. grand Makan euh, beneen bi nga xam ni daf ñu def. teel a tàggu ba teel a tàggu li tax ñu am problème euh, ci làmb ji instant yi nii mooy benn mbër benn mbër moo tax ba làmb ji pour man euh, gars yi sax instant yi nii pour ñu duggaat ci làmb carrément daf ñu daf ñu teg stress quoi muy franc lan lay xaar ci diggante mm-hmm. ak Quench ndax yaa ngi ciy dox ndax franc jël na avance u Gaston production oui ou non ndax aussi Gaston production ñu ngi koy jéem a pour combat am taxaw digganteem ak Quench wala digganteem ak Alioune Seye ndax loolu la amateur yi bëgg. yow nag te question yi comme loolu comme journaliste lamb yi daa gudd te te te cadre rek. ndax comprendre na na peut être par la c'est l'essentiel. li waroon may xuloo gi. <laughs> noonu Bakary dina ma rey rek. Ah léegi léegi Franc não am na contrat ak não non Franc Não, ci não bu neex la. Franc não Franc Quench ci combat merci beaucoup. lan la ci gàtt combat bu neex bon euh, mën naa wax ni que Franc ñu ngi koy utal adversaire fa laa mais mais mais Quench ils se sont frustrés. Quench pour ñoom benn promoteur lijjanti wu ko. Quench pour si si non non non non. Quench Quench Quench Quench dina bëre dina bëre ci deux mille vingt quatre bi. ah mais du doon ak Franc. mën na mën na bëre Franco mën na bëre keneen mais dina bëre. Hmm. dina bëre kontaan nañ loolu merci beaucoup.

Mm-hmm. waaw yéen loolu euh, ça pose aucun problème. seen ngeen ngeen jël mm-hmm. non non vraiment même euh, soo xoolee sax bi Reug Reug bu mu ñuy bëreel mi ngi woon avance su MMA. Mm-hmm. donc yooyu nekk ñu fi pour xañ wërsëgu kenn. ok mais y a des risques hein? y a des risques certes le par exemple su signé woon euh, ni combat MMA. ñu xam date bi. Mm-hmm. ñun dinañ xool ban date lañ koy jox su dee dañ kaa tëggal. Mm-hmm. su dee nag dañ kaa signal benn combat mu am combat nii ba ñu jox ko date bii ngay bëre. Mm-hmm. su boobaa du ci bëre MMA. daf ñuy bëreel ba pare mu dem bëreel MMA bi. mais nii amagul adversaire mu jël combat MMA ñu xam date bi mënuñu février lay bëre lay lay def MMA bi. su boobaa même su jëlee suñu avance ñun dañuy bàyyi ba mu bëree ba pare ñu soog a programme suñu date ban ban date la war a bëre euh, làmb ji. ok parce que MMA bo beneen culture la boo xamante ni mën nga ci jëlee lu ne on sait jamais. donc yooyu yëpp da nga koy calculer risque yi da nga koy calculer. parce que gars yi ñu ngi laaj fii Franc Franc Aliou Seye numéro 2 par exemple bu Aliou Seye man bëgguma bëre Aliou Seye numéro 2 Gaston production mënu koo forcer à ce que mu bëre ak moom loolu laa bëgg xam ndax loolu lay demee wala u pas. non euh, Eumeu bëgg na newul bëggul bëreeg Franc bëgg na bëreeg Franc mais dafa bëgg Franc jël benn combat daan mu soog a si ci moom. Mhm. loolu mooy condition bi pour Eumeu Sène bëreeg Franc. donc instant mi ni muy exemple su ma ko joxoon benn adversaire nii muy coince mu ni keneen su ko jàlloon automatiquement ñoom ñaar seen combat day taxaw. ok d'accord euh, Alioune man combat bi ma gis su ko doon tëggal man. Forza laa koy jox. Forza. Mhm. waaw. ok. su ma doon tëggal Alioune Seye de jamono ji Forza laa koy jox. combat la. mais mais mais mais mais par exemple comme comme Franc tey jii nii ko bëggoon jox coins jàpp nga ne dina dina ko d' dina ko d' accord mais dafa am euh, différence de cachet. à un coût élevé. à loolu mhm. day jaral promoteur bi mu def ci xaalis bi loolu. Mhm. combat bi taxaw. ou sinon.

non demuñu fenn sama mbokk la ñu foofu. gars yi moo ko boo dem ba baal ñu leen naan leen baal ñu desatul. bon bon j'avoue que yoo xamante ni bon dugg nañ si kii bi mais bon bari ñu c'est une c'est une bari ñu département la de. non non non tooñ rek mais boobu c'est un combat c'est très bon combat. mais yàlla baax na ñëpp ñu ngi boobu ñëpp ñu ngi koy xaar nag. Coin Check Franc moom ñu ñëpp ko bëgg. yàlla baax na dégg naa leen. waaw ñu ñëpp ko bëgg.